asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha lañ teewalaat si biir kër gi di nuyu kilifa diine kilifa aada di ñaanal ñu tëdd ci lali hôpital yi kër yi yàlla yëkkati leen ñu jóg doxi seen soxla ñu nekk si tolof tolof tamit yàlla na la yàlla fajal seen i soxla comme nu ma leen ko faral di waxee business profile lañu wax looy yëngu képp ko fi ñëw rek foog ma am ci lu ma yëngu tey nag ma am koo xamante ne macha allah moo ma génnee fu ma dugg tey gis ngeen suma kanam ma bàyyi ko mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan laataa ñuy waxtaan asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Aïcha maa ngi lay fay di nuyu waa kër gi di nuyu askan bi nga xamante ni ñu ngi seetaan Sahel Network mhm. TV ah, di leen ziar lu bare bari di leen jox seen wàccuwaay. di wax ne man la Zeynab Diop borom Zeynab Beauty. waaw kay gis nga nu ko waxee Zeynab Beauty kon nag moo tax gis nga ñun suñ kanam yi ñëpp a yanj macha allah. ñu ngi glitter comme ñu neexee. Ah, Zeynab ñu gën koo comme ñun moom xam nga jànq yi moom dañ mun a yàqutoo di aja aja aja rek lañ koy faral di ooyee moo tax mënu may wax Zeynab bi. waaye xam naa ne Zeynab baa dàq aja bi bu yow booboo la gënal. moom a gënal sax waaw mu ngoog léegi nga waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy seetaan wax leen kan mooy Zeynab. waaw Aïssa dinaa sawar lool ci tontu si tontu boobu noonu because wax si sa bopp dafa neex waaw te danga ma laaj pour ma wax sama bopp mm-hmm. Zeynab mu ngi doon doomi réew Gambia bi mm-hmm. juddoo si Gambia yaroo fi màggee fi xamee fi lépp mm-hmm. comme na ko waxee rek luy yëngu maa yëngoo tamit ci biir Gambia bi di yëngu si wàllum make-up maanaam boo déggee ñu ne make-up mooy wàllum taaru jigéen naam jigéen ñi taaru nañ sax waaye maanaam luy yokk seeni taaru. yokk ko mu ngoog man kay moo gisoo tey foog ma génn man moom sañse laa <laughs> moom. te kanam bi rek sañse waaye yow yaa ma daax gisoo tey fi nga génn. léegi nga wax ñu tuuti si wàllum sa expérience make-up lan moo la si dugal ak lan moo tax nga tànna euh, di defaral nit ñi seen kanam yi surtout jànq yi nga xamante ne ñoom fu ñu nekk make-up da duñ mën a dem fenn. waaw Aïcha make-up soo gisee ma dugg si daf ma yàgg a neex dafa doon li nga xamante ni dafa yàgg nekk sama xol dama naan dox sax di gis ko make-up sax fekk mënuma make-up may taxaw di la xool ba fàtte sama bopp ne maa si yoon bi di dox <laughs> uh-huh. sama xol bi day sedd guy ma ne lii daal foog ma def ko waaye yàlla jàppale ma si lool mosuma jaar si benn solo na damay jàng make-up yàlla jàppale ma si lool ma bëgg ko sama xol rek yàlla may ma ko mu mm-hmm. doon sama métier loolu kese la ma si yàqale jigéen nag <laughs> man moom am naa si wàll te keneen na ci ko seetee mm-hmm. parce que gis nañ ne lu bëri jaaxa yu bëri léegi make-up rek la ñu wax ba pare am na ñoo xamante ne comme yow noo ko waxee ne demuloo si salon yi kenn pour mu jàngal la mm-hmm. waaye gis nañ ne comme ñu si ëppal léegi dégg la ah, mun ngay defar sa bopp waaye baax na tamit ngay dem boole sa bopp tam si ñeneen seen xalaat mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne tamit soo demee pour Eh, ñu jàng si ñoom dañ la dee bëgg a jël advantage at least ñu bàyyi la nga munali sa boppa dañ la fay téye pour ñoom soo liggéeyee nga jox leen ko waaye yow tamit li nga def baax na torop nga làqu sa ruq <laughs> di yàq kanami nit ñi ah mu ngoog allah gis nga ay sa te ma sax si jànq yi rek emuma si xale yu jigéen ñi damay defar jéeg ji mag ñi xam nga jigéenu Gambie ñoom macha allah dañoo bëgg lu baax xam lu baax te di ko def xam lu mm-hmm. yànj te di ko def léegi nag ñoom dañuy ñëw ma leen di defar yu baax ñuy mm-hmm. jàkkaarloog seen famille ak seen borom kër di leen bëggal sax del maquillage waaw da ngay gis kuy dem marché sa ñëw ma make up ko même baax mu dem oh, marché. nga xëcc xale na ne yow moom kaay moom te moom make up la. te ah, eh, damay jékki-jékki rek marché marché ma xam yaa ay de. <laughs> da ngeen ne ah, leen xëcc rek sama doom ndey yi. Mhm. ak sama client si nga xamante ne dañoo baax neex a defar loolu mhm. damay sawar si di leen defar. Mhm. damay jékki-jékki rek woo kenn ne la kaay ma defar la. ndax dama koo bëgg rek. billaay ah, loolu moom neex na kon yal na si yàlla jàppale. amiin yaa léegi soo seetee si wàllu meko bi dugg nga si waaye am na leneen tam ni nga jotoon a laal maanaam ci wàllu wax ci rajo bi léegi loolu laa bëgg nga wax ma lan moo la dugaloon si wàllum nekk si euh, public bi comme ni ko di waxtaana nit ñi si wàllu rajo bi lan moo taxoon nga dem si rajo bi continué loolu tamit nga dem si makeup bi. waaw Aïcha rajo bi bala ma fa doon dem sax maa ngi woon si wàllu make-up bi di def ndanka-ndanka ndax xam nga lépp xëyul rek sotti waaye rajo bi nag boo gisee ma dem fa nekku ne comme rajo bi laa demaloon noonu mm-hmm. dafa am compagnie bu ma fa demaloon di leen advertise al kese loolu rek moo ma yóbbu woon si rajo bi waxtaan yi neex yi fa loolu rek moo ma ah, léegi yow what are your challenges so depuis boo xamante ne yaa ngi commencé wàllu make-up bi waaw xam nga nit ku nekk moom booy dund. Mm-hmm. mënoo wax na jaaruloo si benn jafe-jafe. foog nga jaar bu dee ab tuuti sax foog nga jaar si loolu mm-hmm. noonu. waaye yàlla nag man daf maa dimbale tombé la ma yooyu jafe-jafe yooyu noonu. ndax da yàlla daf maa booleeg doomu aadama yi nga xamante ni dañoo baax. Mm-hmm. dañoo neex a defar ba pare dañ maa óolu tamit bu ñu xasee ba ma tiim seen i kanam rek lu ma leen defar rek baax na comme tey yow noo ko doxalee rek. <laughs> gis xam nga tamit nit su fekkee na am na lu bëgg soo demee pour mu defaral la de euh, make-up kat ak ñawkat moo am. Mhm. soo demee ne ko defaral ma lu rafet rek dafa laa defaral loo xamante ne da nga koo yëg waaye soo demee wala nga wan ko nataal ne ko lii ak lii ak lii laa bugga comme dafa am problème boobu noonu parce que xam nga nobody is perfect soo doo mun a wax ne. xaaral ma def exactly comme loolu ki def fo nga am lo ci def te mom da nga def loolu ba pare mu ne déedéet kii defoon nii defut ni defoon ni so léegi yow euh, loolu ye bokk na si challenges yi nga xamante tan ya ko deug la deug la <laughs> billahi léegoo léegi jankay day ñew sax ne la style bi la bëgg nga defal ma way dina jema try pour defal la loolu noonu ndax bëgguma nga ñew ben yoon ba pare dawaat mhm. dina la try ma defal la lu yàlla daf ma ci jàppale comme ni la ko waxee rek dama ko yaga bëgg bu ma xasse xol ben yoon rek mën na mhm. léegi boo ma indilee ne bii bëgg nga defal ma yalla daf may di su suma lako ko rek dina la neex budé indi wo tamit style man buma suma su suma own style sax ma da ngay gis ne damay mën dem damay si bobu la gëna gaayé gaawee sax créé la li nga xamante ma sha allah lu yalla xam doyna mm-hmm. wa ba légui ñu waxtaan ci walu make-up bi euh, ñan ñoy sa main customer ño xamante sa su ne rek dañu bëgg Beauty mu leen ni bëggal waaw eh, Aïcha suma main customers dañoo bari dañoo bari nag car macha allah ba tax na mënuma lim lépp bu eh? eh, ma limee rek damay juum ci ñett rek ay waay ñett rek jànq ku la bàyyi xam nga moo yow da nga ma soo léegi ñu taaru yi rek ay nekk sa gannaaw léegi da ngay lim ñett rek parce que gis naa ne leneen ak leneen ak ci biir waaw suma main customers yi ñett rek nga bëgg ma limale si ku si mel ni sama doom day noo ko waxee yaa Aïda si la bokk ak suma main customer bi nga xamante ni macha allah daf maa yàgg di ma indil clients mu ngi mel ni Efo Diba duma ko fàtte mukk ndax maa mom moom démb la woon depuis bi nga xamanteni ma ngi jàng makeup musuma xeb ci ben yoon ak sama sister bu baax bi Ndey hadi <laughs> kooku mooy daalin moom daalin rek lañ koy ooyee su ne su ma daalin rek man ma kontaan kon na Ndeye Khady jaajëfal nañ la yaa Aida ak Dibakunda boobu noonu. effo Diba Dibakunda boobu man ba moom nekkul lekk kat nag. non du lekk kat na man maa ngi am bu gàtt bu xees bu fi nekk. ñu mm. bala sant la waaye lekk rek lay def mu ngoog léegi yow Adja lan ngay mun a xelal youth si nga xamante ne ñu ngi toog defuñ dara euh, bugg a dugg sa business xamuñ yoon wu ñuy jaar. ak lan ak lan ak lan loo xamante ne am na courage bi pour def ko waaye amuñ support bi pour def ko lan ngeen la mën a xelal. waaw Aïcha youth si li ma leen di digal mooy ah, bu kenn toog sa kër di xaar ne man aw ma liggéey aw ma liggéey mm-hmm. déedéet man maa ngi nii mm-hmm. jàng naa bi jeexal ma liggéey waaye dama engage suma bopasi ci something mhm. muy walum makeup bi ni mhm. nit ki nek war nga mën am sa métier bop mhm. bo amé sa métier bop mën nga dem yalla dimbalal si nga dem ba di dimbalal waate yow say moromi yuut daf ci bax torop ma len di wax na bu kene tok sen kër ku nek na try mu engage bopam ci dara nit ki bo bëggé dara rek dangay def dara comme niñ ko waxé rek dangay ñak ma nga ñuqi paré di di len wax né tamit pour ñuy dimbalal sen mbokk gambien si ndax fini warta génn ci bitina da nga uti dara buñ jappalanté rek ñun ñëp dinañ dem. incha allah léegi si jàppalante boobu noonu laa la bëgg a laaj ci yéen yan ndimbal ngeen xamante ne soxla ngeen ko muy support pour yéen mii di yëngu si wàllu make up nan la leen mën a dimbalee ñuy seetaan. waaw ku ñu mën a dimbale mën nga ñoo boo ñu mënta dimbale tamit si xalaat mhm. xalaat bi moom soxla nañ ko lool boo boo ñu mënta dimbale si xalaat tamit boo amee doole mën nga ñuy dimbale si doole mhm. waaw am na makeup artiste yi nga xamante ni ñu ngi fees del si dëkk bi amuñ sax place bu ñu nekk amuñ ko mhm. ba pare tamit amuñ i bagage loolu noonu yëpp ku ñu si mën a dimbale rek soxla nañ ko bu baax a baax ba pare dañu utal tamit customers yooyu tam soxla nañ ko bu <laughs> a ku bëgg a jot ñii di Zeyna Beauty Adja lan la ñuy def. waaw Zeyna Beauty ku ko bëgg jot rek mun ngaa ñëw ñëw mu ngi si digg xooli suñ ci alaaji mun ngaa ñëw foofu noonu wala nga call ma si 304 96 54 wala si 22 97 294 gisuloo joxe na nomba yi foofu si digg xooli suñ ci alaaji maanaam one love moom fu mu nekk sax dafa neex one love lañ ko tuddee kon xam nga ne soo ñëwee foofu noonu rek di nga am jàmm dégg jàmm mhm. kon nag Adja laataa ma lay jox ma ñetti question ni may faral di teg si taabal bi da tàggatoo ñu seetaan parce que xam naa ne yooyu bu ñu ko commencé ree la ñuy tëjee. <laughs> waa Aïcha ma delluwaat di la gërëm beneen yoon si dalal bi nga ma dalal fii ci Sahel Network TV ah, di gërëm askan bi nga xamante tamit ñu ngi follow Sahel Network TV di gërëm suma waa kër sama yaay ak sama mag yi nga xamante ni ñoo ma féetoo ginnaaw féetoo ma ndey ak baay ba tax na jooyu ma baay di ñaanal suma papa yàlla yërëm ko xaral ko àjjana. fa suuf si kawam di ñaanal di gërëm tamit sama si yëpp nag di wax ne kontaan naa lool ñu bëggee sama ñaari nene tuuti yi sa kër ga ak sama daalin béy bi ndeysaan kon loolu neex na waaye man lu may faral di teg si table bi mooy euh, ñuy wax ni seetaan loo xamante ne daf lay métti loo xam ne boo ko xalaatee rek sa muur dafay ceej doo bëggatee sax wax Aïcha man nag xam nga fu mu nekk damaa doon xale bu nga xamante ni am passé wu ma am passé wu ma ñàkk ba tax na man dundaguma yooyu ah, noonu. waaw di dund suma olala rek free stress non rek man laay dund. léegi lu ñuy tëjee mooy danga may wéyal lébal ma wala nga joxe ma cax. laataa boobu la ñuy moom foogu loolu loolu di teg si taabal bi loolu laa la wax kon ka euh, <laughs> waa Aïcha dafa am benn njaayante nag njaayante laay tooñ kon. daa am benn njaayeen sëriñ la njaayeen bi ñu andil ko añ mhm. buñ ko andilee añ nag mu fekk taaliba yaa ngi toog mhm. ñu war a lekk mun a déedéet te bool bi mu ngi fees dell ak ay pooj pooji ginaar oh. nee na nag na gaa yi julli ba pare mhm. soog a lekk gaa yi fu ñu tàmbalee julli rek nag euh, muus bi ñëw yóbbu benn pooj bi yaa ngi dégg moom moom njaayeen bi si boppam mu ngi jiite di julli léegi muus bi fu muy demee noonu rek ah ñeneen ñaari muus di ñëwaat. Eh, mu ngi xool xel maa si muus gi te mënut a bàyyi tamit julli gi. léegi benn taalibe bi jóg ndànk dem jëli bool bi toxal ko bàyyi julli gi. bu gaa yi jullee ba sëlmal mu ne ko sëriñ bi mbaa yaa xuma julli gi mu ne ko yoo yaa jegal julli gi. <laughs> donc bi laa bëgg nga olofal parce que dafa am koo xamante ne mu si behind the screen moom daf mu ne man may fànn fànn bi léegi yow mi nga xamante ne yaay jóobeen jóobeen bi làkkalal ma ko si faana faana lu tuuti rek ñu mën a tëjee loolu. ay eh, ay eh, sax xam nga woon faa jógee suñu dëkk. man suñu dëkk laa jóge sa kër Omar Sène. bu ah. ma dikk fi la yow nga dala ma fii si Sahel Network bu ñuy wax Sahel Network TV maanaam télé. yow yaa ma gën xam lu may wax sax. oh macha allah kon nag yéen fii lañ koy amale ba beneen édition of the Loo Yëngu Aïcha teewoon si biir kër gi rek ak kii di Soxna Zeynab thank you so much borom Zeynab Beauty bye bye.